Euh, li nga xam ne moom mooy connexion bi euh, neexul fii nii euh, ci Sénégal waaye nag Kébé ñu waxtaanee ci tension bi nga xam ne gis nañ ko ndiki dem fii nii Sénégal te ku ne xam ne ne comme ni ñu koy waxee Sénégal jàmm lañ ko xamee mais suñ demee ba tension di installé wu ndax lan ndax dañoo condamné nit ki te ñoom ay ñoñam jàpp ne c'est injuste parce que la nga xam ne loolu la ñu waxoon depuis le début nekkul ne loolu lañ koy condamné. waaw xam nga fii moom. Mhm. bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax xam ni démb la xew fa ca palais de justice maam euh, justice amu fa. parce que dëgg nag moom moo neex yàlla. Mhm. Euh, démb Ousmane Sonko mënuñu ko toppee lu jëm ci wàllu viol. Euh, ba tax ay bakkani bakkan rot ci. Mhm. Sénégal dugg ci ay yoon yoon kaaw. xam nga démb maa ko doon junji bi ñuy bi ñuy relaté bi ñu def édition spéciale bi relaté euh, fee yi nga xam ni ñu ngi am actuellement ci euh, sur le territoire national mais mhm. boo xoolee euh, Ousmane Sonko en tant que tel tey li ñu ko xañ mu génn ci réew bi ak li ñu ko teg ci dossier boo xamante ni si nii au mhm. finis juge bi nee na lii nii dara du ci dëgg mais malgré tout ça ñu jël lépp teg ko de côté Mmh. wut loo xam ne en tout cas ñun ñu ngi koy soogay dégg bokkul woon ci avocat yi peut-être mën naa ne sax doon défendre loolu xëy na dañuy jékki-jékki un procureur de la république wala un procureur général euh, taxaw boole ko ci wala mu wax lu ni mel rek ñu xëy suba ñu ni loolu lañ ko condamné en fait mbir la boo xamante ni si di mais mmh. tey euh, xam nga ko waxul dëgg wax la ci des di nga actuellement réew mi fi mu fi mu toll mmh. euh, instant bii nii nekk na loo xam ni yàgg nañu ko wax yàgg nañu artu que ni euh, nañu moytu di dugal Sénégal ci yenn musiba yenn guute yoo xamante ni sii ni mhm. ñoom xam nañu ni bu ci xasee dugg euh, musiba kese kese la mën a jural réew mi tey mhm. ku doon wax naan lu fi amoon du fi amaat mais lu fi amoon du fi amaat asalaamaaleykum maaleykum salaam nga compté neuf morts mhm. te neuf morts yooyu sax am nañu ci sikki sàkk parce ki ñu jox communiqué bi ki ñu jox communi euh, communiqué bi def na fi ay communiqué yoo xam ne dañu ko weddi mu def ci communiqué yoo xam ne dara du ci dëgg kon bu génnee def ñu communiqué itam pour respecter rek euh, règle de l'art yi danañu ci sukkandiku mais en tout cas am na ñoo xam ni euh, ñi ngi koy ñi ngi koy démentir te boo gisee ñu ko démentir gis ci ginnaaw que ni moom def na fi communiqué yoo dañu ko weddi da nga ci am doute loolu mooy dëgg kon yaakaar naa que ni ñi ngi doon wax naan euh, pays bi dakaar wala pays bi il est sous contrôle maîtriser nañu affaire yi que fi amoon du fi amaat mhm. dañu trompé wu lourdement chaque jour daan nañ ko wax que ni pour ñàkk loolu est du firndee xamuñu population bi nga xam ne moom la jiital moom la ñuy jiite jamono ji. c'est parce que dañ leen xamul wala ñu bañ leen a jéem a xam-xam lu rek moom ñu xam leen ak di jéem a fénéti xëy na ñaar yooyu moom moo ci am soit dañ leen a mhm. xam leen ba a fénétal ñaar yooyu moo moom moo ci mën a am mais de toute façon tey ñoom xam nañu ne ñoom ci boppam euh, bien vrai que génn nañu di wax parce que. un ministre de l'intérieur boo xam ni xëy na après danañ ci ñëw. heure boo génnee di wax yow. Euh, discours kilifa bi ñuy xaar ci yow presque mën na doo ko dégg ci yow mais nga xam ni am na en tout cas de démb ci Sénégal. Mm. kaw gi nga xam ni dugg nañ ci euh, dugal nañu ci réew mi. Mm-hmm. ba neuf morts encore amaat ci ci dossier boo xam ne ay tàppale kese la ak i fen dara du ci dëgg. tey ñu àtte ko ba ñoom ñu xam ne lii dara du ci dégg quand même. Mm-hmm. loolu il faut que. mu mu bañ a respect rester impuni ñi nga xam ne dama jàpp ne ñu nekk ci tàppale yi yëpp yëpp yëpp yëpp ñu génnee leen ñoom ñëpp benn par benn mhm. teg leen ay daan yu méngoo ak li nga xam ni teg nañu ko réew mi jàpp naa ni parce que bakkan yu faatu benn bakkan rek dafa mais ay bakkan yu faatu moom euh, gëm naa ni euh, fi ne nii puisque amuñu peine de mort mën ñu leen a teg lenn lu ko mën a remplacer mhm. mais ñu teg leen loo xam ne au moins nit ñi danañu xam ni li ñu leen teg xëy na xaw naa méngoog ñoom li ñuy def def lu ni mel da nga ko xalaat xalaatati ko mais tey Ousmane Sonko leneen li ci am mooy euh, tey laave na honneur am ba mu set wecc wecc wecc parce que am na ñoo xam ni daan naa ko yàgg wax fii mhm. yàqoon nañ ci deram naan dafa viole gone geek nangam nangam siq na ak moom tey histoire dem na ba Ousmane Sonko tey jii seet na ba mu setal nañu ko ba mu set mhm. wecc wecc wecc ci bépp tuuma boo xamante ni si en tout cas ñi ko doon teg ci kawam léegi nag euh, li ci des mooy mhm. euh, lii di candidature am kese xëy na euh, li ñenn yàgg wax te dégg démb nañu ay am ñu wax que ni moom la ñu bëggoon xañ Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle xëy na moom moo tax ñu wut euh, par force loo xam ne dañ ko teg ci kaw ba daan ko ci ñaari ati kaso yoo xamante ni si nii euh, deux ans ferme yëg teg ci yëkkati amande maanaam yow ki ki ko ñu viol nee na nee nañu euh, violé wuñ ko defuñu ko dara te mhm. teewul ñu sàkku amande bu toll ci vingt millions teg ko ci kawam loolu kenn xamul lu koy expliquer moo tax vraiment justice bi ñu fi nemmiku démb mhm. en tout cas justice la boo xamante olof Ndiaye day faral di wax ni dëgg fu mu amul jàmm mu moo tax te loolu ñun moom lañ yàgg a bañ te instant bii nii dama jàpp que ni euh, discours yi nit di war a tenir mooy discours boo xam ni dafay dalal apaiser indi jàmm ci réew mi mais euh, pour le moment voilà discours yoo xamante ne discours d'apaisement jàpp moom lañ gën a soxla jamono jii nii mais mm-hmm. kenn ku ne di jaay maanaam man maa mel yëpp maa ngan gis nga lu leen dal tey jii mën nga ni force reste à la loi moom moo leen ko teg parce que à chaque fois nga bëgg rek ni force nangam nangam ñëpp xam nañ doole gi nga am kenn naatabletu ko mais euh, boo bëggee ni fi nga taxaw doo fi jóg des fois kilifa il faut itam ngay yolomal euh, parce que daf ci daf ci am solo ngay dawal tuutu indulgence dafay daal di baax bu baax a baax a baax Fatima mm. euh, depuis le début de cette affaire noté nañ dernièrement 26 décès am nañ ko ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko mu nekk dossier boo xam ni euh, dugal na réew mi ci kaw ku ne mhm. xam ne ne on dirait que ni euh, pire que 2021 mhm. moom moo amaat maanaam mars 2021 euh, bien sûr comme ni nga ko waxee defe naa ne dossier bi moom mhm. bañ ca duggee ba tey amul dara loo xam ne jural nañ ko te mu nekk loo xam ne xëy na lu positif la mais dañu gis ne que à chaque fois Euh, ay mort la ñuy jural ay dégâts mu nekk loo xam ne euh, day changer bu baax a baax li nga xam ne moom mooy facette Sénégal mhm. mais aussi day changer euh, vision ak bët bi nga xam ne moom lañ doon xoolee Sénégal ndax bu ñu demee ba benn dossier boo xam ne rek maanaam ñaari sénégalais ñoom ñoo ko sekk ñu gis ne que ba mbir mi di door mu jural ñu 14 morts ñu gis ne que après 3 morts daal di ci dolleeku ak 9 morts yi nga xam ne moom moo ci dolleeku yaa ngi koy wax léegi depuis ba mhm. mbir mi dooree bu ñu defee li nga xam ne moom mooy dajale ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ci ñàkk seen bakkan lim mi day mm-hmm. toll ci 26 mu nekk loo xam ne en doy na waar ñu dem ba Euh, fi nga xam ne moom mooy ca cappaandaw ba la nga mhm. xam ne ñëpp moom la ñu soxla woon euh, ñu daal di ñuy tegal ci taabal ba ne que la taxoon euh, mu jural ñu ay dégâts jural ñu aussi ay mort defe naa ne lépp ay tappale la amul dara loo xam ne nekk na loo xam ne am na ci kon donc man dama naan lii nekk na mën nañ ko tuddee un verdict fatal voilà nekk na bien sûr nekk na verdict boo xam ne ndayaa ba mu wàccee gis nga démb lam ñu jural waxuñu mhm. la sax fi biir Dakar mais Sénégal la bari ña nga doon génn di manifester parce que nag euh, mbir mënuñu mënuñu maanaam teg benn mbir boo xam ne ndeketal lañ ca tegoon yëpp amul dara loo xam ne lu am la euh, ñu gis ne que lam ñu jural nekkul loo xam ne euh, maanaam nekk na nekkul loo xam ne lu baax la ci réew mi ndax ñu demee ba à chaque fois bu procès amoon da ngay gis na économie bi di taxawee ñu ci mm-hmm. bari ñu mën a dem liggéey ñi nga xam ne ñoom ñooy moto cag-cag yi aussi ni ki noonu ku ci nekk yaa ngi toog sa kër parce que xalaat nga ne que su ma génnee dara mën na ma dar mm-hmm. yaa ngi toog di jéem a fexe noo def ba yokk li nga xam ne moom mooy sa sécurité kon day nekk loo xam ne bu ñu demee ba def euh, li nga xam ne moom mooy analyse yëpp ñu gis ne que la ñu foogoon ne moo ci am nekkul loo xam ne lu am la kon donc dama naan euh, li nekk na loo xam ne euh, gàcc la bu mag a mag fii ci biir réew mi mm-hmm. gàcce la ci li nga xam ne moom mooy suñu justice ndax ku ne xam na ni que am na taxawaay bu mag boo xam ne amoon na ko mm-hmm. nit ki mënoo ne da ko tuumaal ci lii Euh, mu ñëw ñu laaj ko ay preuve mu ne carrément amuma preuve ya nga xam ne euh, mooy mooy la ma doon wax ne que diw daf ma sàkku nekk loo xam ne lu am la euh, ñu jugee ñoom ci seen jëm bopp taxaw ne carrément la ñu doon toppee ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nekkatul loo xam ne lu am la ndax seetal nañ ko ci mbir moomu mais malgré tout ça daal di nañ koy daan ñaari atu kaso mu nekk loo xam ne en tout cas doy na waar parce que gis nañ ne que benn parti ci ñu ci ëpp projet ba nga xam ne moom Ousmane Sonko daf leen ko tegaloon ci table bi ñu ci bari mm-hmm. dañ ci amoon confiance am ci euh, euh, di xañ ki ko doo bokk euh, te a comprendre ndax di ne moom moo ko def mais gis nañ ne ñu ko mujjee jaarale ba daal di koy amal kon defe naa ne day nekk loo xam ne doy na waar lool lool ci jamono ji comme ni ma ko waxee sànq rek gàcce la ñuy di am fii ci biir réew mi ndax bu ñu gisee ni nga xam ne noonu la réew mi mel jamono ji ak saccage yu bëree bëri yi nga xam ne ndaw ñi def nañ ko euh, fa ñu waroon avancé wala nañu waroon euh, jëmee ca kanam dama naan dañuy reprendre à zéro ndax gis nga li nga xam ne moom moo fi jotoon am ndax gis nañ mars 2021 donte xëy na euh, moor yi ñoom ñoo ëppoon jamono jooju donte xëy na gis nañ ne ci ci tàng-tàng ba 14 mois moom moo ci amoon morts. bien sûr c'est trop waaw c'est c'est ci dëkk boo xam ne. Euh, ndaw ñi rek ba nga xam ne amoon nañ ko même bu ñu amoon lu leen metti da ngay gis ne que dañuy génn euh, di manifester mais pacifiquement mais bu ñu demee ba à chaque fois ñi nga xam ne ñoom ñooy takk déedéet da ngay gis ne que euh, bu ñuy tirer parfois sax du ñu xool dañuy ñëw rek tirer mu mu nekk loo xam ne en tout cas doy na waar lool lool. Mm-hmm. war ñu woon dem sax ba mën a yegg ci stade bi ndax à chaque fois dëkk boo xam ne démocratie la yow mi nga xam ne yow yaa di ne lii la ñu bëgg rek kon donc euh, nekkul ne boo ko defee loolu xëy na sa défaite la bien sûr nekkul loo xam ne boo ko defee yow sa defet la wala loo xam ne boo ko defee da néew doole non waxuñu ko parce que ku ne xam na ne euh, état amul ku ko ëpp doole yow yaa ëpp doole foofu te lépp loo xam ne bëgg nga ko rek danga koy def mais aussi da ngay def la nga xam ne moom moom méngoo ak sa réew ndax defe naa ne euh, taxé wuñ la nekk que yow mi sa li ngay def dafa nduru ak li nga xam ne moom mooy démocratie Euh, moom mooy euh, dictature du moins yow bu ñu lay méngale dañ naan yow démocratie nga kon euh, bu ñu demee ba majorité bi ne lii lañ bëgg nga la waaye defal leen ko rek jàmm mën a dellusiwaat ci biir réew mi bu ne que yow la ngay woote effectivement loolu moo am ci yow ndax da ngay dégg à chaque fois ci seen ay mmh. ñu ne ñoom Sénégal moom moo leen ñor avancement wu Sénégal moom moo leen ñor waaye ndaw ñi aussi moo leen ñor bu ñu demee ba ndaw yi ñu ci ëpp taxaw ne la lii la ñu bëgg kon donc la ngay def rek pour jàmm mën a dellusiwaat mooy nga fekk ci leen ci lañ bëgg ndayaa yu am solo euh, Sonko gagne et perd noonu lañ ko mën a waxee parce que ci wàllum mbirum euh, viol beeg menace de mort bi gagné na fa mais corruption euh, de la jeunesse fa lañ ko daal di daane parce que jàpp nañ ne moom Ousmane Sonko dafay corrompre li nga xam ne moom mooy ay ndaw ma fa lañ jëlee boobule mbir nag mën nañ jàpp ne euh, ci mbirum parce que man mënuma concevoir Kébé nga jël li nga xam ne moom mooy ay euh, maanaam mbir ñu ne lii la viol ak menace de mort nga enquête ci li ni mel ne daf maa violé daf maa euh, nit kii ne ko daf maa violé daf maa menacé de mort après au finish ñu ñëw ne jàpp mais du du du lii lañ ko mais li nga xam ne moom mooy maanaam dafa doon guerre li nga xam ne moom mooy ndaw ñi mu nekk benn paradoxe boo xam ne je dire que ne nemmeeku nañ ko ci mais aussi bëgg-bëgg Euh, li nga xam ne mooy mooy benn nit wala liquider un adversaire politique euh, tax nag yow ngay sacrifier ñi nga xam ne ñoom ñooy say doomi réew te ñoom ñoo la jox li nga xam ne moom moom moom nga am jamono ji pouvoir bi nga xam ne euh, ñu ngi koy wax ne état am na ko lépp askanu Sénégal waaw xam nga tey Ousmane Sonko boo xoolee. Mhm. li nga xam ni <clears throat> moom lañ ko moom lañ ko condamné muy corruption de la jeunesse boobu nga xam ni. en tout cas bu fekkente ni ñoom thèse hypothèse yi nga xam ne ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon kii ci euh, Sweet Beauté bopp te bu fekkente ni barab la boo xam ne dañu fa doon jaayee ay ay gone. Mhm. fu ñuy jaaye ay gone moom euh, corruption mënu fa am wala wala wala xëy na yu ni mel kon euh, corruption de la jeunesse man en tout cas. Mhm. xaw ma fu ñu ko jëlee. ba mu war ci mën a condamner un leader mais en tout cas en cas. jaaxal na ma tey Ousmane Sonko ñoom malheureusement yàlla dafa def nii lépp bépp combat bu ñu ma siq ak moom wala lépp lu ñu ma siq ak moom office dafa mel ni Ousmane Sonko day am dëgg ci seen kaw. parce que mhm. lii nii eh, rek firnde la waat ci boo xamante ni si parce que dossier bi amul sénégalais bu bare bari bu ñu jotuloon xëy Ousmane Sonko li ñu koy jiiñ moom moo ko def. mais mhm. tey ñu bari ñi doon wax ni. nañu bàyyi justice def justice def liggéeyam tey eh, justice def na liggéeyam mais li ñu ci gis rek moo nekk lu décevant parce que dañu bàyyi. teesu viol boo xamante ni si ni lu toll ci ñaari at ak lu teg mi ngi nii moom lañ moom la moom moo doon lëmbi réew mi moom lañ ko doon toppi moom Ousmane Sonko ñu dindi ko teg ko fële euh, dem attee ko leneen loo xamante ni si nii kenn xalaatu ko woon kenn mosu ko woon a foog euh, ci bile mbir ci bile dossier amul kenn ku daan taxaw ci plateau di défendre lu jëm ci corruption de la jeunesse ak yu ni mm, mel mm. Euh, amul kenn koo xam ni itam daan ngeen di fare fenn. ba ci mhm. avocat sax li ñu daan euh, préparé ñoom di ci défendre mooy lu jëm ci wàllu viol kon tey bu ñu jikkee ñu jël lépp teye ko nele dikk di mhm. ñu wax ay corruption euh, de la jeunes loolu euh, dafay poser problème bu mag a mag a mag a mag surtout suñu wàllu ci suñu wàllu yoon gi mhm. nga xam ni tey dafa am lu muy refléter lu bare bari sur le plan international tey jàpp naa que ni vraiment démb fële ca pale de justice bi mbir mi dogal gi daanoo Euh, ñu bare bari am nañu mbetteel en tout cas euh, ñu bare bari itam am ñu lu leen lu leen jëlee lu leen jëlee kaw ci dogal googu noonu kon lii nii mm. euh, comme ni ko ñenn ñi di waxee rek objectif final bi moom moo nekkoon boobu Ousmane Sonko bokk ci élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal loolu kese kese moom moo ci nekkoon parce que tey Ousmane effectivement Ousmane Sonko xam nga ñoom Ousmane Sonko tey Mhm. même bu bokkul Ousmane Sonko toll na foo xam ni ci politique ci politique euh, même su bokkul. Euh, bu ngémboon Kébé mii sax ni ko demal ni Sénégalais yi voté leen dañ ko votal ñoom. Mhm. kon euh, bu nu yaakaaree que ni xëñ Ousmane Sonko bokk ci élection xëy na moom moo leen fi tax mën a permettre ñu continuer di des ci ci ci ci. nguur gi dañuy nax seen bopp parce que loolu mënu leen féetee effectivement kon yaakaar naa que ni yii nii yëpp pour man euh, jaru ko woon te mënoon nañ fi bañ a agsi mm. la loolu laa jàpp xam nga tey boo wootee dialogue dialogue man yaakaar naa que ni amul woon a gën a amul woon a gën a mën a yàlla tey ñu waxtaane euh, fi mbiri réew mi toll jamono jii nii mm. mais boo gisee dialogue boo xam ne dañ ko woote ay mag jëm mu dem fa mm. naan deel gëmm di dóor rek tay eh, deel voilà deel deel am loo utiliser nangam nangam dialogue ba kon dafa mel ni que ñoom dañu ko woote woon pour laajte ndax naa defam du ma def mhm. tout court mhm. eh, dafa mel ni dañu bëggoon am lu luñ bëgg a def doon laajte ndax man naa defam du ma def loolu kese moom fu ko léegi nag bu fa ay kilifa demee am fa taxawaay boo xam ne du taxawaayu kilifa loolu laa ko mën a tudde parce que démb imam Dramé woote na en direct attaqué benn kilifa boo xam ni ma nga fa woon loolu sa mm-hmm. euh, pose problème tey yow mënoo gis ni Sénégal mm-hmm. euh, lii nii bu fi amee mën na yee fitna te effectivement xam nga euh, loo xam ni la moo tax man ni la du ñàkk xam mais dañu ko bëgg a fenetal parce mm-hmm. que koo xam ni buñ ko daan convoqué réew mi léppay convoqué rek léppay taxaw des fois sax ay yëngu-yëngu am mais xam nga ni euh, bis boo ko condamné mais xam nga bu baax a baax conséquences yi ci maanaam des fois. Mm-hmm. nit yi ñoo daan rafetal rek nan nangam ak nangam mais. xam nañ bu baax a baax li ci mën a tukkee kon dama jàpp que ni euh, vraiment mhm. euh, il est temps nag euh, actuellement parce que mieux vaut tard que jamais parce que ñi ci bakkan yi ay bakkan jot na ci rot ba noppi salaamaaleykum maaleykum salaam ñu wàññi neuf personne yoo xam ni déjà ñàkk nañ ci seen bakkan mhm. li xewoon événement mars yi nee nañ du fi amoon dootu fi amaat cette fois ci ah, salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi xool nu ñu coupé ay yenn ci ay réseaux sociaux pour xañ nit yi ñu mën di véhiculer mooy seen information. te mhm. loolu événement marché amutoon. kon li fi euh, li amoon événement marché déjà euh, li mu diire woon diire gu ko mais man ngeen la fi amoon presque am na fi ba commencé fara man bi may ñëw. station bi ma dégénéré aussi. Euh, effectivement bi ma romb mooy station Castor bi. Castor bi armée laa fekk ñu taxaw fa di ko garder wallaahi lazim armée nationale laa fekk taxaw ñu yor seen i kenn ah, ñu wër ko depuis démb sax commencé nañ ci ko nii mais xam nga fi xam nga fii nii maanaam alalul tubaab gi station Total bi nga xam ne tubaab bi ñoom ñoo ko moom ci lañ wàccee armée bi ñu taxaw fa pour di ko pour di ko way xam nga démb saccage yi amoon yëpp ay Eiffage ngay dégg ay euh, euh, autoroute à péage ma nga mel ne route rideau may ga ku ñëw ja oto bu ñëw jàll parce que euh, surveillance amatu fa maanaam bien yi nga xam ni booy ñu ngi koy ciblé di ko di ko saccagé mm-hmm. loolu maanaam xëy na seen stratégie la ñoom ci mooy xeex nga xam ni ñu ngi koy xeexe en tout cas mhm. pour li nga xam ni moom la ñu bëgg a fësale li nga xam ni euh, moom mooy seen naqar mhm. kon cette fois si nii xam événement marché avant armée di intervenir dem na ba mbiri xaw a gën a dégénérer mhm. mais cette fois ci salaamaaleykum maaleykum salaam ñu indiwaat armée aussi tamit teg ci kon ça veut dire que ñoom ñu doon taxaw eh, bu ñu dég bu ñu déglu woon ñenn ñi ah, en tout cas au début te nanguwoo déglu li ñu leen di wax yaakaar naa mën nañ fa bañ ak agsi mais le fait que ñoom ñu toog seen i bureau climatisé xamuñu yi fu ñu àgg ak xamuñu booyi fu leen bi ñu toll ñu dem xamu lu ñu wut bu bëgg a taxaw naan li fi amoon dootu fi amaat c'est parce que dañu comprendre woon wala bëgguñu woon a comprendre eh, booy yi fi ñu toll ak message nga booy yi eh, ndeya mm-hmm. dañu génn xam la xew bitim réew ñibbisi xam li nekk fii nii boo yu ci bare bari lu mu néew néew néew am na ci boo yoo xam ne jot nañu dugg ci gaal gi ñëwaat am na ci boo yoo xam ne jot nañu génn ci yeneen euh, sous raison yi xam la fa xam ñëw fas yéene toog fii xam ne ñoom seen réew ay malaaka lu ñu wàcc fenn ji lañ ko defaral ñoom ñoo ko war defaral seen bopp boy yooyu ñoom ñu jël tey seen ay responsabilité yàgg nañu wax que ni mm. daf ci bari ay boy yoo xam ni seen bakkan dañ ko tayli woon ci géej gi Barça wala Barsax boy yooyu ñoom ñoo dem ba am genn éveil de confiance gu ñu am ñu fa séenee toog fii ci réew mi léegi nag loolu boo ko mm. mënta jël euh, en compte tey da ngay da ngay am problème moo tax tey vraiment li ñu dal nii yëpp yëpp yëpp di ñu dal ci quelque part nag ñuy saluer Euh, professionnalisme yenn takk der yi parce que am na ci waraf yoo xam ni euh, bu am na lu mu doon demee. voilà mënoon nañ bi mën na gën a métti. mais itam lu mu manti demee itam am na ci côté boo xam ni am na défiance bu mag a mag a mag parce que ak lu manti xew njortu naa que ni. Mhm. ay bakkan di ci ay manifestation kese kese dafa ëpp trop trop trop trop. kon yaakaar naa que ni fi ne nii. Mhm. état bi na jël ay dogal jël mesure pour euh, fexe mbir yi dellusiwaat au calme parce que. ba tey bu ñu demee ba suñu kilifa diine yi sax ñemeetuñoo génn wax parce bu dee en tant que kilifa boo waxee ñu teggi sa wax sànni euh, kooku vraiment de ragal en tout cas li ñu naan l'heure est grave l'heure est extrêmement grave ci mhm. actuellement heure fi ñu toll nii ci Sénégal voilà ñenn ci kilifa diine yi buñ bëggee wax du euh, duñ mën parce que wala kii nga xam ne moom lañu jàkkaarloo euh, di waxal maanaam nopp bi nga xam ne moom la leen di jox du ba lim leen di wax day dugg fii daal di génn fële gëmmal rek euh, doo tey mu nekk loo xam te alors que askanu Sénégal ñu ngi nekkoon ci guuta soxla ku leen dëfal waaye tamit soxla ku waxal ku wax ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall am ñenn ñu taxaw. naan ko euh, gëmmal rek euh, dóor ana lan la ñu wuutu wala ana lan lañ bëgg a wax ci boobilee euh, mbir nag nekk na mbir moo xam ne jeexal na askan waa Sénégal parce que xaaruñu ko woon ci ñoom yooyu li kàddu Fatima tey Dakar ville morte la te comme ni mu ko dek nekkee tamit ci yeneen gox-goxaat yi gis nañ économie bi mm-hmm. taxaw na lool taxaw na lool ndax boo mm-hmm. xoolee tamit am na ci marchandise am na ci commerçant yu bëri yoo xam ne tëjjiwuñu seen place te tamit comme ni mu ko waxee tey rek am na ko ne moom tabaski baa ñëw ñoom bëgg nañ génnee seen xare ci mbedd mi mais vu la situation euh, Sénégal amuñu sax kóolute pour génnee li nga xam ne moom mooy seen xar pour jaay ndax dafa nekk ville boo dafa nekk dëkk boo xam ne jamono ji euh, situation bi euh, c'est très compliqué tendu na lool lool. Euh, bien sûr comme ni nga ko waxee jamono ji mën nañ jàpp ne situation bi compliqué na lool lool